بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون

ñëwoon tey nag euh, ñoo doon def hôtesse yi ak accueil bi ak organisation bi si bari ci liggéey bi ñun ñu ñoo ko doon def tarfakal la liggéey bi baax na rafet na tamit ndaxte alxuraan moom lu ci def rek jar na ko ñu nekkoon ak suñu njiit nag ak suñuy mag mu doon euh, madame Diallo madame Thiam ak Khadim mbay tamit moo nekk euh, président organisation bi di sant ñëpp ci seen teewaay bi tamit teewaay bi rafet na di gërëm ñëpp euh, organisation bi nag yomboon na yombul mais bon ci macha allah quand génn nañ si ci jàmm et lépp awee na yoon ci niñ ko bëggee woon ak yooyu noonu yëpp demee na si waddu law tudhinu fa yudhinuun sadaqallaahu al-aziim maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun